mbokk yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi nu ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay ndaanaan waaye tey nag ma ñëw seet si suma frère yaakaar naa ni dootuñu ko présenté sénégalais yi ndax it euh, sénégalais yi xam nañ ko waaye nu ñu ko tuddee l'ami des jeunes filles saa su rek mi ngi ànd ak ñoom ci seen euh, bëgg-bëgg rawatina si li nga xamante ne moo di seen mbégte ah muy suñu frère Tyco Tako. ma am mbégte tey seetsiwaat ko ñu am ak moom jotaay ci li nga xamante ne rek sénégalais ñu ngi koy xaar ci moom ci ko maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaar di la bàyyi rek nga jokk mbokk leen fay euh, yéen waa Dakar Buzz di nuyu aussi euh, euh, fépp fu waay nekk. Mhm. la jox sa wàccuwaay di la ñaanal aussi kooru jàmm ko ñu ngi ci moo weeru koor. amiin mhm. naka naka naka gi. ci ban côté. naka koor gi ci gi yaa ngi ci koor gi wala yaa man nag du ma woor. lu tax. parce que balaa jaamu yàlla daa am lu jiitu. muy xam yàlla ndax yàlla dafa ne sàkkuma nit ak jinn ak mala lu dul ñu jaamu ma. Mm-hmm. waaye balaa ngaa jaamu nag ma xam ba pare ndax soo ma xamul ana na samay jaamu. Mm-hmm. loolu yàlla waxtu ñu dégg loolu bëri na ñu nangu loolu bëri na. Mm-hmm. kon donc donc du coup problème bi bien avant jaamu bi. da nga jéem a lijjanti luy xam yàlla d'abord ndax loolu la bëgg. ndax dafa ne xam ma njëkk. balaa nga maa jël am. Mhm. léegi nag ma lay laajte luy xam yàlla pour yow. Hmm? d'après toi dama lay laaj luy xam yàlla. luy xam yàlla non question yi kay moom fu mu nekk samay question la man maay laaj yaay tontu <laughs> ndax yaa ngi ci gëstu pour xam yàlla gannaaw nga nee nga wooroo. ah yaa yaa ngi gëstu pour xam yàlla. si man maa ngi gëstu pour xam yàlla. Hmm. si. mais li ñu yàlla digal donte ne xamuñu ko mais ci li nga xamante ne daf ñu ko def muy farate si ñun doomu aadama yi ko war a jaamu nga ne doo wor. en yàlla daa am lu en fait euh, dëgg-dëgg pour wax ci yàlla foog ñu comprendre ku yàlla d'abord ndax yàlla moom mooy di buur boo xam ne moom dafa am. Mhm. ba pare di sàkk ay jaamam pour ñu jaamu ko. Mhm. comprendre na loolu moo tax léegi nag saa bu bëggee jaamam fàttaliku ni je dis bien fàttaliku ni da nga war a jaamu sa borom ci la lay yónnee. Mhm. ka lay yónnee day yónnee yenant pour mu ne ko waxal samay jaam. man yàlla kenn laa te man rek lañu war a jaamu. waaye ba tey waxul ni man yàlla kenn laa te man kase ngeen la war a woorloo ba tey waxul ni man man yàlla kenn laa te man yàlla man yàlla kese la ñu war a jullil ba tey waxul loolu mais dafa ne man yàlla kenn laa te man kese lañu ñu war a jaamu léegi nag luy jaamu yàlla. mooy def ay digle bàyyi ay tereem. d'accord léegi yàlla yàlla yàlla lan la digle xam ma soog maa jaamu kon ñaari affaire la ñaari affaire la yàlla santaane. mais ndax boo toppul ci ay digleem di nga ko mën a xam ba bëgg kaa jaam. d' accord c' que digle yàlla digle yàlla lenn kese la. muy xam ma doog ma jaamu lenn kese la léegi lenn loolu nag moom la jox yéenant yàlla Muhammad rasulullahi lenn loolu noonu moom la jox Jésus Christ parce que tamit yéenant yàlla la. Mhm. lenn loolu moom la jox maanaam képp ku yéenant léegi nag loo am importance xam bi moo am importance waaye nuñ ko war a xamee amul importance parce que mën nañ ko xamee ci mën nañ xamee ci bunt bu ne mën nañ ko xamee ci bunt bu ne li muy tekki. Mohamed Rasulullahi moom ndaw yàlla la. yàllaa ko yónni. te juumul ci liñ ko yónni. yonente yàlla Jésus Christ muy Insa. yonente yàlla la. yàllaa ko yónni te juumul lu ko yàlla yónni. mais Jésus Christ yàllaa ko yónni. dafa woote kurus ak satala euh, dafa woote kurus ak satala ak aji màkka. te yàllaa ko yónni. kon lan moo tax euh, euh, maanaam bi yàlla bi yàlla yàlla mi yónni Mouhamed. moo yónni Jésus Christ comprendre nga donc lan moo tax jëfin yi wuute. lu tax jëfin wute. esprit boobu ngay doxe non maanaam képp kuy jaamu yàlla esprit boobu nga war a doxe mais pas man esprit laa doxee lu tax loolu. parce que quoi instant bi nii nii réeral naa la te tamit nga neex ko nga ña maanaam nga bëgg ko nga bañ ko d'accord nga ci loo xam-xam lu tax. Hmm. bu fekkee man maa yónni paate. Hmm. war a yónni demba lim lay yónni lenn la war a doon. waaye nag bu fekkee paate mu xool en fait euh, euh, euh, waaye bu fekkee paate moom mooy xool yoon bu ko neex mu aw pour yegg fi mu ko yónni kii tamit mooy xool yoon bu ko neex mu aw. pour yegg fi mu ko yónni donc du ko diine moom mooy maanaam xol en fait diine ay charte yoo xam ne la nit ki moo ne nii nga ko war a doxalee pour ma jot mais pour nga jot ci li ma yàlla yónni keene man sama bos nii laa koy dox nii laa koy doxalee boo toppee loolu di nga jot ci li yàlla yónni. parce que la preuve moom mooy. n'est-ce pas Jésus-Christ ba tey yàllaa ko yónnee. d'accord moom yónnent la n'est-ce pas gëm nga ko. d'accord moom nee na sàngara baax na. Jésus-Christ. mais yàlla daf ñoo àtte parce que daf ñoo wax def ni ku ñu def ni ñu ne lakum diinukum waliya diin pour bañ ñoo jaxase bañ ku nekk di am xel ñaar na ku ci ne maandu ci sa diine morom te nekk sa diine. léegi moo tax ma ne la diine pour lan la ndax diine amul solo xam lu am solo. Hmm. yàlla. xam yàlla moo gën a fort diine. mais xam yàlla mais ti mais euh, mën nga xam yàlla aussi mais tamit lu tax doo nekk ci ay santaaneem yàlla nee na jullil wooral ajil màkk joxel azaka. d' accord au fait loolu noonu julli baax na torop yaa ngi koy def woor maa ngi ñëw julli. baax na trop waaw maa ngi ñëw rek julli baax na trop. Mhm. baax na trop mais yàlla moo gën julli yàlla moo gën woor nangu nga loolu yàlla moo gën julli fuuf yàlla moo gën julli. parce que yàlla moo gën lépp lu am. Mhm. yàlla moo gën julli nangu loolu. waaye nee na yow mal xiyaam bu ma leen di àttee ku sa julli baax dootuma xool ci yeneen jëfin. non non. yow jàngoo neel jàngoo lool. non non en fait di nga yàlla. dañ ne xol bu set mooy dugal nit àjjana. ndax bu dee ndax bu dee julli. Mm. ndax bu dee julli. julli dafa bokk ci xeetu jaamu yàlla yi. waaye bu baaxee lépp baax na. moo tax ma ne. waaw parce que moo gën lépp luy jaamu yàlla jullee ci gën. non en fait julli yoon la rek la moo xam la moo tax ma ne yoon la rek bu fekkoon ni mhm. euh, euh, comme tu as julli moom moo gën ci yoon yi yoon yi ñuy jaay ñuy jaamoo yàlla bu fekkoon loolu dëgg la lan moo tax Moïse mi nga xam ne yàllaa ko yónni lan moo tax Daawda mi nga xam ne yàllaa ko yónni bu lan moo tax keneen ak keneen mi nga xam ne lan moo tax ñoom julliwuñu. mais at mais yónni yee bokkul. d' accord non en bu fekkee ni yónni yónni yee bokkul kon yàlla bokk. yónneent bu nekk ak la ko yàlla jox pour xeetam. d' accord en fait moo tax ma ne xamuloo important. Hmm. jaamu yàlla moo important parce que yàlla jaamu mi lay waxal léegi jaamu yàlla nag nekkul ni njabootu Moïse kese ñooy jaamu yàlla ñu nit ay jaamu yàlla lañ chinois bi jaamu yàlla lañ keneen ak keneen jaamu yàlla lañu. Hmm. alors yàlla buy yónni yënantam da koy yónni ci jaam ñi. Hmm. jaam ñi jaam yooyu nag mën na nekk sénégalais comme ne mën na nekk chinois. donc di ko nekkul ni Moussa li ko yàlla yónni ci waa Moussa la intéressé. te foo jàngee jàngee ma fenn. sa xam-xam bopp ngay doxee. du xam-xamu bopp. Hmm. du xam-xam bopp man dama tarbiyu pour dem xam sama borom. Hmm. man dama tarbiyu hmm. pour dem xam koor gi daal ba ba léegi war a ci ndax. nga xam nga man xam naa ni yàlla am na. waaw. comprendre nga. xam naa nit yàlla lu nekk la. ndax xam naa ni safara lu nekk la. xam naa ne àjjana lu nekk la waaye ku mel ni man nangu loolu lépp ne ba tey julliwu ma wóor man fi mu euh, euh, parce man daa am fu leer fi nga xam ne. man maa ko teg te ñu koy te ñi koy mën a confirmer mooy samay morom. sa morom samay morom ñooy ñan mooy ñi nga xam ne ñoom tarbiwu nañ tamit ni man comprendre nga pour xam yàlla parce que xam yàlla ni ko gars yi di déggee ak ni mu amee dafa wuute. naka ngay déggee xam yàlla. d'accord en fait xam yàlla ñu ko gaay yi di déggee mais waa mbedd bi. Mm. moom mooy da ngay julli da ngay da ngay juddu nga am juróom-benn at sa papa sa papa fekk moom musulman la woon. sa mm. papa yóbbu la ci arab mais mais école école arabe yow nga jàng arab bi arab ñu ne la yàllaa nekk ci kaw am ñu moom yàlla bëggul lii yàlla bëggul lee nga. Mm-hmm. yow nga commencé tiit boo tiitee nag ñu ne comme que yàlla lii la bëgg boo ko defee di nga dem àjjana ci di def loolu dañ laa ne comme que yàlla lii la bëgg nga commencé di def léegi boo commencé def nag ci nga koy màggaale màggaale màggaale ba xëy dee euh, deewaale ko comprendre nga. Mm-hmm. léegi yow boo ko deewaalee jàpp nga ni xam nga yàlla ba tax ngay jaamu waaye xam nga yàlla da nga dégg yàlla. parce que dañ la ne yàlla bëggul lii yàlla bëggul lee yàlla bëggul lee da ko dégg doog a jaamu te moom waxul la dégg ma soog a jaamu mais xam ma soog a jaamu moo tax sànq ma waxoon la luy xam yàlla parce que ni nit ñi jàppee ni mooy xam yàlla du xam yàlla. dégg yàlla naka nga jàppee xam yàlla. d'accord xam yàlla moom mooy yàlla dafa ne. laa ilaaha illallah. parce que bi muy bi muy bi muy yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. da ko ne demal ci say jaam. nga ne leen man yàlla kenn laa lu tax mu wax ko loolu moom mooy parce que jamono joojee njabootu yenent yàlla Mouhamed. ñoom ils étaient des animistes ay xaam ay ay ay xaam lañ doon ay kii lañ doon jaamu quoi ay xërëm. Mm-hmm. léegi nag yàlla mu ne ko demal ci ñoom ne leen man man man yàlla kenn laa amul yàlla ay kii amul yàlla ay kii. Mm-hmm. moom nag comme que lu waaye am lu ne sa njaboot ak njëkk a yëg. Mm-hmm. ci la yenent yàlla Mouhamed commencé ko ci biir këram mu ne leen ndekete yoo yàlla kenn la. ndax xërëm yii ñuy jaamu du yàlla yàlla kenn la leer na ma ndax man yàllaa mu yónni léegi nag te pourtant yeneen la n'est-ce pas mhm. léegi nag di jaayam bi ñu woowee aboo laxab ci la ko ci la ko pesee weddi ko ba pare génn ko kër gi yëg ma loolu mhm. sabatee daa mhm. d'accord léegi nag ginnaaw bi ko yàlla bi ko bi ko aboo laxab pesee génn ko kër gi mooy weddi na ko te ndaw yàlla Mhm. comprendre nga. Mhm. léegi nag ci la yàlla waxee ni moo tax ma jël benn euh, aboo la xam tambal ko jaxat na ma ndax moom la bind ci tabat yi daal. Mhm. léegi nag comme que yàllaa ko yónnee te message foog mu yegg ci la génnee continuer jaam ñi ne yàlla kenn la yàllaa ma yónnee yàlla kenn la yàllaa ma yónnee. ñi ko gëm ànd ak moom ñu ko gëmul sànni ko xeet pour génnee ko koñ bi comprendre nga. léegi nag problème moom mooy mooy en fait euh, euh, même bu fekkee ni tam dañ koy génne koñ bi di ko sànni ay xeet et tout moo di gàddaay fii di gàddaay fii di léegi nag ñoom nag bu ñu bëggee gañ combat ba tey ñoom ñu ne euh, euh, euh, maanaam ñii nii pour ñu gëm ñu yàllaa ñu yónni dëgg la waaye ñii pour ñu gëm ñu maanaam xërëm bi nga xam ne moom la ñoom moom lañ jàppee muy yàllaay karim hmm. saa bu ñu ko yàqee ñu ñoom ñu gëm parce que ñoom moom la ñu wóolu moom la ragal comprendre nga mais problème bi moom mooy xërëm boobee dañ ko doon garder ak ay paaka ak ay jaas te xërëm boo xam fa la nekkoon hmm. biir kaabay màkka xërëm boobu moo nekkoon ci biir kaaba yi màkka loolu moo tax maanaam kaaba gi ñun ñoo ko moom waaye waaye autant ñu ko woon dañ ko nangu ci ay loxoy jàmbur kaaba gi mhm. yonente yàlla moo xam ne tabaxu ko pour ñun musulman yi dafa xeex pour nangu ko kaaba gi nekkul yàlla moo ko tabaxee aras sànni sànni ko ci suuf ne fii laa bëgg ngeen may jaamoo fii mooy sama kër ça ne s'est pas passé comme ça ba tey jullit yi dañoo ñun jullit ñi dañoo xeex pour nangu ko pourquoi ñu xeex pour nangu ko parce que li ñuy woowee maanaam xërëm li ñu woowee maanaam xeetu seytaane moo nekkoon ci biir kaaba gi te dañ ko waroon dàq pour saxal dëgg ci biir kaaba gi muy pour saxal xark bil xakk muy yàlla. Mhm. comprendre nga léegi nag ñoom nag bi ñu xeexee ba gañe combat bi ci la yonent yàlla Muhammad duggee ci biir kaaba gi génn xërëm yi toj bala ba mu set ne leen gis ngeen lii du yàlla yàlla kenn la moom rek moom moo mu yónni te moom ko sa leen war a jaamu ndax lii bu nekkoon yàlla lan moo tax jugul fayu. comprendre nga. Mhm. ñi euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo toppoon njabootu Seydina yonent yàlla Muhammad mhm. ñoom ñoo ko ne ñun kat dañoo jàppoon ne lii moo yàlla. Mhm. comprendre nga parce que quoi dëgg la ñoom dañu jàpp ne loolu mooy yàlla. mu ne ko nag waaye yow bu ñu ko tojee bale ko ba mu set génne ko ci biti ci la ñu xamee nii yow li nga wax yéen noonu maanaam quoi pourquoi parce que ñëw nee nga yàlla ku màgg la yàlla kenn la yàlla du toj yàlla du ban waaye lii nii toj na ban na maanaam yàlla kon léegi yow nga ne nga yàlla kenn parce que ils avaient des doutes yow nga ne yow yàlla kenn la ok yàllaa la yónnee ok léegi yow xamal ma kuy sa yàlla moo tax yàlla mu ne dag may xam ba pare soog maa jàmm moo tax ma la la sànq yow luy xam yàlla parce que xam yàlla nekkul ni da nga dégg ni yàlla mooy ci kaw loolu dama ko dégg la te yàlla waxul dégg lépp xam yàlla moom mooy da ngay dégg ni yàlla nee na bëggul lii boo dee da nga safara yow nga commencé def xamoo yàlla da nga dégg loolu léegi nag ba tey luy xam yàlla pour yow ok amul problème léegi nag man dinaa dinaa ci gën a leeral luy xam yàlla ah, léegi nag. Mhm. bi ko euh, bi ko ñi ko àndaloon ne ko. ne ne yow lañ daral yaa war a leer yaa yaa waxtaan ak léegi nag ñi mu mais leen ñi àndaloon njabootu Seydina Muhammad. Mhm. Euh, te nga xam ne ñoom jaamu xërëm. Mhm. ba yonent yàlla mu xëy génn leen ci jaamu xërëm boobee ne leen sama yàlla moo baax bii mooy bu baax bi ñoom ñu ne ko. booba tey ñu ngi xeex ñu ngi xuloo ndax yàlla ok lii lañu ñu foogee woon muy suñu yàlla bi nga ko tojee amatuñu yàlla rey nga suñu yàlla léegi comme que ñun amatuñu yàlla tey wu nee nga sa yàlla mooy ku baax ki hmm. mooy ko gën ki mooy ku for ki mooy la magiste wu xamal ñu kuy sa yàlla xamal ñu yow lan la la yónni bu boobaa nag comme que moom moo génnee sa moom moom moo génnee euh, seytaane ci biir kaaba gi ci la fasaxalee dëgg muy xakki biir xakki bi mu la waxoon ci la jëlee jaam dugal ko ci biir kaaba gi. Mm-hmm. parce que kaaba gi am na bunt mais amul palanteer. Mm-hmm. ci la jëmee jëlee jaam dugal ko ci biir kaaba gi xamal ko nu yàlla nekkee kenn xamal ko moom ni moom dëgg-dëgg yàllaa ko yónni euh, ginnaaw loolu nag ci la jaam génnee ci kaaba gi ne allahu akbar allahu akbar maanaam yàlla ku màgg la yàlla ku màgg la ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam maanaam wulaay yàlla ku màgg la yàlla ku màgg la yàlla yonent yàlla moo xam ne mii yàllaa ko yónni maa ngi maa ngi seede loolu waa léegi n'est-ce pas waa ji euh, euh, mooy noddu loolu lay tekki <laughs> léegi nag kon yow ñoom lan moo tax ñoom ñuy seede lu ñu gisul wala boog yenent yàlla Muhammad lan la leen xamal ba ñu génn ne allahu akbar allahu akbar yàlla muy màgg la yàlla kenn la parce que daleen xamal yàlla comprendre ma léegi nag ma lay laaj est-ce que mën nga xam koo gisul. Mhm. mën nga xam koo gisul. waaw ah. am naa papa. Mhm. xam leer na la. non non si si leer na la am naa papa parce que dañ maa jur. Mhm. xam nga sama papa. pourquoi. mais bokkul ci xam yi ngay waxee ak xam bi ngay fi ngay tegee c'est différent. nee nañu booy joxee da ngay wax yu xaw a. mi waaw nee nañu lépp lu saayaru moo baatinu parce que lépp tolluwaay la lépp adduna bi lépp tolluwaay léegi yow li nga fi tënk lii lépp nee nga xamoo yàlla. xam naa yàlla. kon lu la teree wax. d'accord léegi nag dañ ne ginnaaw xam yàlla ci nga war a jaamu yàlla ndax yàlla dafa ne xam ma njëkk soog maa jaamu léegi problème xam mooy lan. Hmm. lan mooy jaamu yàlla. parce que man boog sama jaamu yàlla man. du sëgg ak sëggi kese bu doon lool bu doon lool la kon yàlla jàppal ne képp ku mu yónnee dana ne eh, samay jaam di leen julli di leen sëgg di leen sigi di leen natt asaka bu dee dëgg la. mais loolu la ñu digal non comprendre comprendre wax. maa ngi dégg bu baax. yow kon da nga xam yàlla ba pare ti di def li la neex. non non du yàlla wax xam li yàlla santaane. nga ne ko teg ko fee di def sa bëgg-bëgg. ak li la neex loolu moo tax sànq ma ne la. Mm. man mii xam lu yàlla bëgg yàlla bañ. man mii taxaw ne julliwuma parce que daa am ci lu ma jàpp lu dëgër lu gën julli lu gën woor te moom laa lay expliquer mais na ñoo xam ne dañ koy dégg rek kañ nga kañ nga tàmm dundee nii à bas âge. non non man man 2006 laa tarbiyu. nga tarbiyu 2006. say waajur yar la ci diine nga jàng alxuraan daan nga julli. man waaw man en fait euh, euh, maanaam sama sama samay waajur ñoom dañoo dañoo dañoo metti woon ci yoonu murit dañoo metti woon ci yoonu murit moom mooy boo nekkee xale bu ñu la woowee même bu ñu la woowee mbàkk ngay wéyoo par force sinon dañ lay dóor parce que man yàgg nañ maa dóor ci dañ may woo ma fàttali ne ñu dóor ma mais laa doon wuyoo tu vois man taa xale bàyyilaat kese laa doon sol. daan nga julli bàyyilaat ko daan naa julli wi daan nga woor. doom naa julli doom naa woor mais mais en fait mais bon comme moo di woor xale da ngay tax rek des fois nga woor gàlle des fois doo woor gàlle tax nga xëy rek décider tey ñi man mii je suis majeur et vacciné julleetuma wooratuma moom mooy li mu la wax mooy li mu la wax moom mooy bi ma ginnaaw bi ma tarbiwee pour xam sama borom tarbiwu naa xam naa sama borom moo tax ma ne la ginnaaw xam yàlla xamul lu des jaamu yàlla mooy li mu la wax te loolu lu leer la léegi nag problème moom mooy nu ñuy jaamoo yàlla loolu mooy problème bi moo tax mën na la bu fekkoon ni yàlla dafa ne julli ak woor kase la ñu may jaamoo kon Daawda bu ko yàlla di yónni Moussa bi ko yàlla di yónni Noa bi ko yàlla di yónni Jésus Christ bi ko yàlla di yónni kon daka naan demal wax samay jaam yee te pourtant ay jaamu ba tey nekkul ne ko suñoo jaamu yàlla de. Mhm. njabootu Jésus Christ yàlla lañu. Mhm. comprendre njabootu njabootu ak keneen ay jaamu yàlla lañu kon donc du yàlla bu fekkee ni daa bëgg ñuy julli di woor kase parce que moom loolu moo ko neex kon saa bu yónni yënant daka naan waxal ñii ñuy julli di woor ndax mooy dëgg mais demoo fa noonu nu fa demee yàlla da lay yónni ci jaam ne leen nañ ma xam balaa ñu ma jaamu léegi problème bi moom mooy. mandargay jullit nan lañ ko mën a jàpp. julli dafa bokk ci xeet yu ñuy jaamoo yàlla dàqu ko de dàqu ma julli ba tey mais ba tey néew ma baaxul dama ne julli. mais ko dul julli doo jullit. jaamu yàlla ak julli bu gën man jaamu yàlla laa bokk. Hmm? man jaamu yàlla laa. mais jaamu yàlla julli def cee bokk te yàlla daf ne ku dul julli doo julli. waaw loolu laa lay <laughs> moo tax la en fait en fait mais xam naa ba mais mais man li ma koy expliqué. mais man nag li nga wax dama ko nangu parce que tamit li yàlla wax tamit moom oh, li nga tar bi yow loolu lañ la defa waaw mais nag ah ñun ci lu ñu jàng ak ci lu ñu fekk fii. ku dul julli doo jullit waaw d' accord lu affaire man nangu naa loolu de. li nga wax ni julli bés dina ah. ñëw nga dee ñu teg la si kanam jullee la. ndax kon yàlla yéex bés boo deewee doo nangu ñu jullee la parce que ba nga nekkee ci ana daan julli doo doon julli. man bés bu ma deewee. Hmm. amatuma lu muy des décider si sama jëmm ji parce que tëdd na ndax xam tax soxlawu ma sama jëmm ji fu ñu koy def ak fu ñu ko dul def ak fu ñuy gas ak fu ñuy suul xam lu tax. Hmm. jëmm du dem ci yàlla. sama ruu moo jóge ci yàlla sama ruu moo war a delluwaat ci yàlla. parce que bu dee jëmm ji maanaam papa ak yaay ñoo ko sos papa ak yaay ñoo ko sos moom mooy ñaari nit tey ndomante sëy doom juddu ci ndax loolu affaire àdduna la waaye nag affaire yàlla loolu noonu loolu noonu bokkul dara ak affaire àdduna loolu moo tax ma ne la xamulu yàlla soxla ci yow mooy li mu def ci yow parce que moo jóge moom parce que loolu moo jóge ci moom te moo war a delluwaat ci moom muy sa ruu bi comprends nga léegi donc bokk ruu bi nga xam ne ok ci yàlla jóge muy leeri kase hmm. moo xool ruu bi nga xam tam moo war a delluwaat ci yàlla moo war a sell moo tax yàlla soxla lu set yàlla soxla lu tane yàlla lu sell la bëgg te ruu kase mën a sell comprends nga hmm. moo tax ma ne la mais man su ma su ma jëmm ji nii nañ ko gas nañ ko suul nañ ko dëggate nañ ko lu ne loolu ñoom la du ko yëg dee naa ba pare fu la neex nañ ko yóbbu parce que intéressé wu ma lu may moom mooy li nga xam ne moo di man li nga xam ne moo di man moom mooy li tax may wax li tax may jëf muy sama ruu parce que je vis léegi ruu boobu noonu yow nangu nga ni mooy dellu si yàlla non mhm. moom moo jar a sàmb moom moo jar a raxas moom moo jar a surveiller waaye bu dee jëmm ji xeesal na xeesalul léttu naa léttalul amul sens ndax affaire àddina la affaire àddina la xam naa commentaire yi dinañu ñàkk du ñàkk ñoo xamante ne aussi dinañ commentaire pour gën laa tontu ci li nga xamante ne moom nga taxawee waaye ba tey euh, ma taxaw tuuti rek ak ci liggéey bi nga xamante ne yaakaar naa ni si la Sénégalais yi gën a xam ti ko tatouage yeeg yooyu noonu naka job bi waaw mi ngi cool yaa ngi cool waaw euh, accord gi j'espère que lu bëri dina changer non pourtant euh, bon dina am tuuti wàññeeku mais darul changer wàññeeku bi ci ban côté. dina am wàññeeku mooy public bi dinañ wàññeeku wàññeeku tuuti parce que dafa am ñoo xam ne nee nañu suñu wooree war ñu def tatouage suñu wooree war ñoo yëg métit genre yooyu quoi ci vois un mhm. donc du coup ñoom dañuy préférer xaar ba dogu wala xaar ba koor gi jeex wala xaar ba jour boo xam ne duñu am duñu am duñu woor. Mhm. ñuy doog def moo tax ma leen nombre bi. wàññeeku na mais li nekkoon li fi nekkoon démb ba tey moo fi rek moo tax man dara changé wul. Mhm. Euh, ni ñu koy déggee dañoo war a warmaal weeru koor dañoo war a euh, def lu baax ngir li nga xamante ni moo di weeru koor ndax yàggul benn woor benn weer képp la te ko ñu daan ñëw naan dama bëgg nga tatuweel ma sama yaram sama awra ba ci koor gi bu nit ñëwee bëgg nga defal ko ko. ba léegi nii waaw lu tax doo ci seet weer bi. voilà lu tax loolu di seet weer bi parce que loolu moo tax ma ne nit boo xamul yàlla da ngay wutal yàlla. bësu jaamukaay da ngay wutal yàlla heure jaamukaay n'est-ce te yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko waree jaamu loolu loolu loolu en fait wàccu la c'est H24 boroom xam-xam yi xam xam nañ li may wax jaamu yàlla du ay heure du ay minute du ay weer dëgg la nag weeru koor nag weer wu ñu fonk la rawatina bésu laylatul xadar parce que yàlla dafa am lu mu lu mu wax ci leelatul xadar waaye secret boobu ñu ko xam bëriwul waaye képp ki nga xam ne moom xam na bu baax li may wax xam ne ne secret laa bu secret secret laylatul xadar bés boo ci jotee bu la neexee bul woor bu la neexee bul julli bu la neexee bul natt asaka te da ngay dem àjjana par la force parce que yàlla wax na ko ci biir saaru leelatul xadar waaye nag comme que yàlla moom buy wax di il parle en parabole il parle en parabole moom mooy yàlla day cax léegi cax nag moom mooy man su ma caxee kii mën na ko xam waaye doo ko xam yow mën nga xam waaye kii du ko xam parce que cax mooy loo xam ne du ñëpp a koy comprendre loolu moo tax yàlla mu ne boroom xel yi selli laay waxal comprendre na léegi nag biir borom xel yi selli laay waxal lu tax loolu parce que toi mais bu dee borom sell xel yi selli la mais bu borom xel yi selli kasa laay waxal xanaa kon jullit yi lay wax quoi parce que ñu ñoo ko bëgg ñun ñoo bëgg mu Mouhamed quoi yàlla dafa ne même ba ci biir jullit ñi am na ñoo xam ne amuñu xel mu sell. looloo waral la preuve moom mooy man mais man mais man li may def nii ànd naa ci waaye àndoo ci te pourtant jullit nga may jullit kon forcément am na. kuréel dafa am loo xamante ni diine. voilà loolu moo tax dinaa soo soo lu bëggee bu fekkee di nga am temps. Mhm. dinaa leen leeral ci diine ba ngeen comprendre par la force. acca ah, leeralal Sénégalais parce que tamit ñu bëri. parce que am ñu li ngay def. parce que jëm leen a que diine. diine nekkul lu yàlla sos diine nekkul lu yàlla sos. lan moo tax may gën a wax ni lii ne nekkul yàlla sos sos ak fit parce que sëriñ dinañ ma déglu sëriñ dinañ jot ci li may wax nii comprendre nga ndax bu ma naree yàq yàq diine l'islam rek ñoom dinañ ci wax bu ma bu bu fekkee ni man li ma wax am naa fu mu ko teg ñoom dinañ na pat parce que yàlla gën lépp te instant bi wax yàlla kese laay wax quoi. Mhm. la moo tax ma ne yàlla kese laay wax parce que yàlla moo gën diine yàlla moo gën koor yàlla moo gën woor. yàlla moo gën fuuf aji màkk xam la moo tax loolu yow loolu lépp boo ko waree def pour kal la pour am yàlla noo mm-hmm. n'est-ce pas léegi yow boo amee yàlla bu la neexee ne defatuma loolu lépp waaye daa am foo ko war a teg mais ban yoon lañ mën a amee yàlla budul ci yoon woowu yow tu penses que yàlla musulman yi kese ko moom wala yàlla Muhammad kese la bëgg. mais bokkul moo daf ñoo àtte ba pare. lu mu ñoo àttee. lakkum diini ku mooy diin dafa ne ku ci ne na nga yem sa diine. mais yow mi nga xamante ne di ko jullit nga da ngaa judd ñu nodd sa nopp bi li xam sa nopp bi nga màgg ñu jàngal la xamal la nga xam sa doom nan nga ko nan nga ko sa doom nodd nga liqaam ci ay noppam n'est-ce pas. du man maa nodd ci ay liqaam mais. imaam bu ko santaane nga yi ma neex ci loolu wala lu ma neexul que quoi comme que jaamu yàlla moo gën a ko war a nuñ ko war a laabaatee comprendre nga man bi ñii neen mi carré imaam bi dina ñëw dina nodd dina ko wat ci laay d'accord parce que loolu ça n'a rien à voir ak li yàlla bëgg dëgg-dëgg ça n'a rien à voir. sa doom di ko dugal alxuraan. su ma doom. Hmm. su ma ko bëggee dugal alxuraan c'est pour mu comprendre Coran. je dis c'est pour mu comprendre. Coran parce que comprendre le Coran et comprendre Dieu ça n'a rien à voir. di nga ko julli loolu. su ko neexee julli su ko neexee su ko neexee du julli parce que xam la moo tax man su ko neexee waaye julli boobu noonu c'est pas mon propre intérêt c'est son propre intérêt pourquoi c'est son propre intérêt parce que moom tamit da di jaamu yàlla man tamit dama di jaamu yàlla. ni ma mënee liggéey ba raw man noonu laa mën ma mënee liggéey ba bañ a raw ni ma mënee liggéey ba dugg àjjana sama doom noonu la mën a liggéey ba dem safara même chose que doom mën na liggéey ba dugg àjjana papa liggéey dem safara comprendre nga donc yàlla la ñu bokk donc du coup yow yaay xool nu la neex nga doxee ko waaye na nga ko teg ci lu yàlla wax ba pare. lu yàlla wax ba pare nag moom mooy li mu waxoon sànq danga may xam ba pare danga maa jaamu léegi problème bi nag moom mooy yow boo muusee bu ligganteegum julli bu ligganteegum woor da nga naan luy xam yàlla ak lan mooy jaamu yàlla moo tax ma lay leeral ba tey bu fekkoon ni yàlla dafa bëgg julli ak woor kase kase kase la santaane. Mhm. képp ku muy yónni ngay yënant danaan la wax leen ñuy julli wax leen ñuy woor parce que yàlla du juum. Mhm. yàlla du juum. yàlla du changer code barre yàlla mais mais yàlla fait mais yàlla mais du changer du changer maanaam politique. nit mooy soxla politique non c'est que jëm xam nga dem nañ ba jëmmi jamono donc war nañoo mën a xoolaat mbir yi di ko changer nit moo soxla loolu waaye yàlla soxlawul changer ay mbir ak ay. mais julli bi mu ñëwee ba léegi kenn changer ko Tyco mën naa comprendre ma sa diin bi daal fan nga ko fan nga ko tarbiyoo fan nga ko jële waaw loolu moo tax ma ne la. en fait loolu moo tax man ne la li may wax nii. Hmm. pourtant lu leer la mais am na ñoo xam ne duñ ko gaaw a comprendre xam nga lu ma duñ ko gaaw a comprendre tolluwaay la pourquoi mu ne pourquoi mu ne tolluwaay la xamoo yàlla mënoo maa dégg c'est impossible mënoo maa dégg moo tax ma ne la mais moo tax ma ne la boo ma bëggee comprendre man mii di wax booba tey te yoruma kaamil li yoruma kurus yoruma dara te franchement waxaguma ci seytaane quoi tudduguma seytaane à part que waaye seytaane moo nekkoon ci biir camp bi ba léegi tudduguma seytaane ba léegi tudduguma benn jinne waxuma dara lu dul yàlla lu tax man yàllaa ma ñor diina ñoruma yàllaa ma ñor diina ñoruma moom mooy moo tax ma ne la képp ki nga xam ne maanaam képp ki nga xam ne dangay aji màkk képp ki nga xam ne da ngay julli da ngay wor da ngay nat asaka loolu lépp am na loo xam ne moo ko gën fuuf muy lan muy yàlla pourquoi ma ne muy yàlla boo jullee pour woor du pour am yàlla mm-hmm. boo jullee ak woor du pour am yàlla d'accord boo ajee màkk du pour am yàlla ngay def lu baax du pour am yàlla boo amee yàlla looy mais mais looy doyee loolu loolu doo ko mën a comprendre fan la ñuy liggéeyee àjjana àjjana duñ ko liggéey fenn fudul ci sa bopp ak ci nit ñi. fan lañ koy liggéey. fan lañ koy liggéey. mooy li ma la wax àjjana. Hmm. duñ ko liggéeyee dara fudul ci sa bopp ak nit ñi pourquoi ma ne ci sa bopp bopp ak ci ak mais pourquoi ma ne euh, pour sa bopp ak ci ak ak nit ñi ginnaaw xam yàlla awa amatoo droit am bàkkaar parce que da def li la yàlla sant pour nga def ko moom mooy balaa ngaa gën a si àddina yàlla danal la. sàkkuma nit ak jinne ak mala lu dul ngir ñu jaamu ma comprendre nga. Mhm. léegi nag yow nag boo gënee see àddina boo gënee see àddina maanaam fàttekat bi lañ lay woowee fàttekat pourquoi ñu ne fàttekat parce que quoi euh, bi nga nekkee xale am na loo xam ne fàtte wu nga ko. Mhm. ci yàlla nga jógee oui oui ci yàlla laa jóge n'est-ce pas ñun ñëpp ci yàlla ci yàlla lañ jógee. Mhm. ban yoon la ñu aw ba ba yegg si àddina bi xamal ko. pourtant am na am na yoon bu ñu aw mbay beeg ci àdduna bi bu fekkee ci yàlla lañ jugee n'est-ce mhm. bu fekkee ñun ci yàlla lañ jugee. Mhm. am na yoon bu ñu aw ba egg si àddina. Ah, loolu kay xam nga ko. <sighs> waa ba ban yoon la. ah xam nga ko wax nga ko yow kay xam nga fi nga yoon bi nga jaar ba yegg si àddina moom. yow koy xoolal yow kay ba xoolal bàyyi maag bàyyi maag wax dara gi rek. parce que parce que ku xam ku ne doomu aadama ñu ngi ko defaree ci man yu. waaw. Hmm? waa juróom ëmb ko juróom-ñeenti weer. waaw. mu soo koy génn ci àdduna daa am beneen yoon. waaw am na beneen yoon. benn yoon la. lan mooy dellu ci yàlla. faatu. moom waaw mooy mhm. dellu ci yàlla. Mhm. ruu est-ce que buy euh, euh, euh, ruu est-ce que bu génnee ci doomu aadama di dem ci yàlla teg nga ko bët doo ko teg bët. Mhm. donc du ko yow. mën nga xam nu ñuy defaree nit moom mooy sperme bu góor ak ak man wu jigéen. noonu la ñuy defaree nit nga koy teg bët nii di ko jàng science di ko def tout parce hmm. loolu àddina la moo tax fii lay des léegi nag li nga xam ne moom moo ëpp importance fuuf ba tax ma téye sama micro muy sama ruu ndax su ma amuloon ruu damay tëdd ne damay tëdd dee hmm. ñu ne wooy tifoo dem na pourtant dew ma maa nii tëdd donc du coup lan moo dem si man loolu moo nekkoon man te loolu nag moo jara sàmb loolu moo jara moom moo jara raxas hmm. moom moom moo tax ma ne la li nga xam ne moo juge ci yàlla bi muy ñëw am na fu mu jaar bu muy dem tamit yow doo ko teg bët muy su ruux parce que xam nga ne man jëmm ji nii jëmm du dem ci yàlla quoi jëmm day nëb n'est-ce pas jëmm day nëb comprendre nga donc di ko jëmm jii nii nii nii nii nii yàlla soxlawu ko ak donc di ko loo ci mën a def baax na lan moo lan la yàlla soxal mooy li ma waxoon sànq danga may xam d'abord doog maa jaamu léegi wax nee naa la nee naa nee naa xam yàlla moom mooy nga dem ñu tarbiya la xamal la sa boroom. tamit nee woon na nee woon na la sànq xam loo gisul yëg nga ne am naa bàyyi dëgg la comme li ma la waxoon sànq yëg nga bu baax ni tikkoo mii kat nit moo ko jur am naa bàyyi n'est-ce pas mhm. waaye est-ce que xam nga sama bàyyi xamoo ko ndax mu soo teg bët moo tax ñu ne lépp lu zaahiru moo baatinu maanaam lépp loo gis ci àddina bi am na dans l'autre monde comprendre nga mhm. donc du coup pour nga xam dara foog nga déggoo waaye pour nga xam mais mais pour nga xam ko dëgg dëgg dëgg foog nga gis ko. foog nga gis ko comprendre nga. Mhm. macha allah macha allah ci kàddu yooyu ba tey ah euh, waaye aussi donc dama woon ak yow ci li nga xamante ne moo di liggéey bi nga xamal ma ni ma am na lu ci wàññeeku am na lu ci yokku Tyco euh, fu la fu jigéen bëgg nga laal ko ci yaramam da nga koy laalal mais ñi nga xamante ne ay soxna jàmbur lañ nan ko ngay def ak ñoom. comme que ay soxna jàmbur lañu. t'as di comme que ay soxna jàmbur lañu. jàmbur moo war a xool na muy def ak soxnaam. da nga ciy am ay cas jabaru jàmbur ñëw ne dama bëgg nga defaral ma lii sama awra wala dama bëgg nga defaral ma lii ak lii ak lii. si bëri na. ay soxna jàmbur. bien sûr bëri na moo tax ma ne la comme que yoon nee nga ay soxna jàmbur jàmbur moo ci war a am yoon maanaam jàmbur moo ci war a am yoon moom mooy man boo dee soxna jàmbur yow nga ñëw ci man lijjantiw ma si soxna jàmbur nga wala soxna jàmbur parce que quoi man li may tere samay soxna maa ngi leen koy tere. te jàpp naa ne ñu ngi koy def ma je dis jàpp naa ne ñu ngi koy def comprendre nga léegi nag kookee li mu war a tere soxnaam mënuma kaa xam comprendre nga alors du man maa koy tereel man maay teree soxna si lu sa waay buggul sama yoon new ci waaye yow miy soxna si comme que yow maanaam tu es majeur tu es soo ma soo boo tëddee ŋàppi ba mu sës ne ma defal damay def comprendre nga loolu loolu du ma ak yow loolu yow ak sa jë borom kër la comprends nga dama bëgg li ma bëgg a leeral moom mooy euh, du du ma yaral kenn jabaram du ma yaral kenn jabaram du ma ne kenn jabaram non non déggal sa jëkk nii ne nii ñoom nañ ko defal seen bopp. parce que man jigéen war naa gàtt xel topp bëgg-bëggam ñëw ci yow nga delloo si ko xamal ko nekkul nii ak nii bàyyi ko mu luy gàtt xel. topp bëgg-bëgg. topp bëgg-bëgg xalaat. ba fàttali ni sax moom lii mii muy def nii war du waree fam du cëram mu def ko mu ñëw ci yow nga war ko mën a delloo si waat xamalaat ko ne ko nii ak nii demal. du yoon xam lu moto toll lu yoon jullit lu mu war a làmboo jullit lu mu war a làmboo ci gën a gën a gën a am solo moom mooy na nga maandu lu ci ëpp solo ci jullit na nga maandu parce que jullit fii ak maanduwul baaxul xam la moo ñu ne dafa xaraam mën na yee fitna pourquoi mu ne mën na yee fitna exemple ndaw si ñëw ci man man may seytaane seytaanalu non yow soxna si yow ngi def nii est-ce que jëkkër din ko bëgg su ma ne tikoo mer liggéeyal te yam fi na yam léegi su ma meree xeex ak moom léegi loolu lépp lu ko waral ñàkk maandu nga ne ko jugal dem du ma defal li jabar jàmbur waa léegi xanaa ma liggéeyu wala boog sama wala ma liggéey man daa am charte tikoo si un euh, jabar bu jàmbur ñëwee ne la fait pas y a pas de charte sur mon fi nga koy def su ma ko mënee dama koy def li li ma la wax li ma la wax pour nga fay ko boo ko mënee fay ma ko waaye kantaa noonoo non ko def ak non seet ci lii sama tus new ci comprendre nga moo tax sànq ma ne la du ma yar jabaru kenn parce que kenn du ma yaral sama jabar man maa yaral sama bopp sama jabar man maa leen digal ñuy def man maa leen di tere ñu war a bàyyi yow du ma la seetaan ngay yar samay jabar du la seetaan ngay ne non non bul def lii ti ko bëgg ko boo defee loolu rek man góor jigéen laa ndax awma kàddu ndax amoo kàddu. non samay euh, tabar. faral di dégg ñu la koy jiiñ comme ni nga ko waxee léegi. muy lan la ay Tyco mi borom ñaari tur yeeg dox bu góor wax la ko wala nit wax la ko. man de maa ngi jéggul nag ci kàddu gi de. ngan di kooy laa am. damaa dàq katte Sénégal. laaj ko waa mbedd bi. barki alxuraanu karim. laaj ko waa mbedd bi. soo paree dinaa am lu mu la woon ci sama téléphone su la neexee. ci ko damaa bu ma war xoolal man xoolal xoolal joué katu porno laa pour muy clair <laughs> man fu ma waay woo waaw fu ma waay woo billaay wala dama fay fekk dëgg la nag artiste da ngay réew artiste da ngay réew moom mooy yow yaay xam nooy def ba mais wut sa marketingu bopp. Mhm. comprendre nga. Mhm. yow yaay xam nooy def ba wut sa marketingu bopp pour pourquoi artiste bés bu ñu arrêté di wax ci yow fay nga. waaye bureaucrate bés bi nga xamee ni yow yaa ngi respecté say heure sa xaalis du jeex donc artiste ak bureaucrate liggéey bi liggéey bi maanaam la muy différence moom mooy kee day wëy ci ay ndigal waaye yow yow yaay yow yow yaay mais mais yow yaay waxloon nit ñi pour avancer donc di coup yaa xam yaa xool nu la neex. Mhm. nga jëfee ko waaye teg ko ci code ak respect. ci liggéey bi yaa ngi ci am maîtrise. maîtrise comme euh, ban genre maîtrise. parce dañuy faral di wax góor góor la rek am na benn melokaan yoo xamante ne bu ko jigéen melee sa kanam foo jaar sa bopp. non c'est que yëg sa bopp loolu yëg-yëg la te yëg-yëg doo ko programme ndax yëg-yëg dafa des affaires yoo xam ne c'est des choses naturelles loolu mooy yëg-yëg nest nag man sama yëg-yëg man est-ce naa ko mën a contrôler su ma safee doxal du mu ko contrôler mooy génnal boppam teen mhm. comprendre nga su ma safee saw aussi lu mu ko muñ muñ muñ muñ muñ dina génnal boppam parce que quoi loolu noonu parce que quoi loolu noonu dañ ko mooñaale ci nit c'est des choses naturelles tout comme envie envie boobee même bu ñëwee mais yow yaa koy refoulé loolu mënul ñàkk da nga refule si c'est sûr mais envie bi même bu fekkee ñëw na ok ñëw na mais yow yaa koy refoulé sa xel da nga koy génnoon sa xel xam ni carrément dangay ngay constaté ci liggéey bi mu rafet ndax liggéey bu rafetee moo lay andi ay nit mu ci loolu lay focaliser wu. Hmm. waaw mosu la dal nga nekk ak client ba ci biir liggéey bi mu forcé la boppam. non parce que man du ma xale boo xam ne dañ koy forcé lu ma lu ma bëgg lu ma bëggul def waaye mënul wax. wax forcé boppam bi soo ko déggee mooy jéem la imposer wala bëgg dund ak yow dara. ci moment bi nga nekkee ci liggéey bi. waaw moo tax ma ne bu fekkee forcé du jàll parce que man kenn du ma forcé. de di nga ci am ay bu fekkee euh, bu euh, kii bu fekkee imposé kenn du ma aussi. mais di nga ci ay proposition bu fekkee ne ay proposition non non dañ may laaj est-ce que yaa ngi yëg sa bopp est-ce que boo tiimee lii doo ko am envie et dañ may laaj des fois tu vois man dama naa dama yëg sa bopp góor laa comprendre nga. damay am envie góor laa mais dama ko def pourquoi parce que quoi dama bëgg a concentré wu ci liggéey bi parce que quoi tamit moo tax ma nit nit nit a doon tamit kan la ñuy sax tuuti wàcc waat boo deful noonu rek maanaam da nga yomb. Mhm. waaw. noonu daal ngay dundee liggéey bi. non nekkul sax noonu laay dundee liggéey bi parce que loolu yooyu même parce que ay xeetu taat comprendre maa ko fësal rek mais barke alxuraan karim loolu rarement laa koy liggéey. mais mais en fait man maa ko mooñaale ak sama image maanaam mooy mu doon sama marque mais ay feru taat nii rarement laa koy liggéey man lu ëpp lu ëpp ci li muy liggéey loolu ay mais ay sourcils la moo ëpp samay liggéey mais taat yi moom dama ci yëngu mais mais c'est très rare loolu may dal bëriwul. ni nga koy def bëriwul am client yu bëgg wala. non dinaa am client yu koy bëgg. waaye man maa farluwul loolu noonu pourquoi farlu ma ci man je préfère la parce que lee moom xaalis kaa taat comprendre nga liggéey ci taat ok d'accord du ko gars yi déggee tout mais cherul quoi. comprendre nga maanaam boog li nga liggéeylu ci taat loolu du cher du du cher donc du ko li gën a cher laa gën a priorité la ci neex wala plaisir bi. non waaw loolu moo tax ma ne la liggéeyu taat farlu ma ci woon ma farlu ma ci noonu parce que liñ ma ciy fay bëriwul man li ma gën a farlu moom mooy su liggéeyu suuf si ndax moo gën a cher te moo gën a euh, maanaam te moo gën a kii quoi moo ma gën a arrangé donc du coup xamal ni taat moomu noonu ma en fait góor laa. waaye loolu noonu préféré ko de trop parce que c'est pas cher donc farloo ma tat bi de xaalis bi laa farloo parce que liggéey la liggéey liggéey liggéey liggéey la quoi tu vois te bépp liggéey nag dafa war am fayeeku comprendre nga wala comprendre li wax. bu baax man mu nekk nii ci tiku. noonu la demee quoi moo ma ne <laughs> moo tax ma ne la. man liggéeyu taat dama koy def waaye farluwuma ci noonu parce que xaalis bi la li ñu fay bëriwul dama koy utiliser pour faire parler les gens waaye nekkul man boobu laa bëgg boobu laa mooy boobu laa focaliser wu li lan laa bëgg lan laa mooy laa focaliser wu moom mooy liggéey bi nga xam ne li ñu fay moo ëpp fuuf même loolu moo ma gënal mhm. parce que man père de famille laa dama war a fay ay facture mhm. ndax yaa ngi toog xalaat bés ñëw nga bàyyi lii lépp tourner page nekk ci leneen bon liggéey bi ñaari affaire ñoo tax ma bàyyi ko comprendre nga ñaari affaire ñoo tax ma bàyyi ko mooy première affaire bi moom mooy bu fekkee dama jël décision bu fekkee dama jël décision nekk ci yàllaay kase nekk ci yàllaay kase peut-être da ngeen ko comprendre parce que moo tax ma ne la fii xamoo yàlla am na ay mots yoo xam ne c'est des charabia dans dans tes mm-hmm. moo tax ma ne liggéey bi ñaari affaire kase ma koy bàyyi loolu moom mooy nekkal yàlla nekkal yàlla moom mooy boo ko déggee maanaam beru ci la bokk dudd ci la bokk. nekk ci ay wéetaay mam xolam maanaam nekk fi nga xam ne yow kasee fay nekk maanaam maanaam di salbal di dundee yàlla ay kase mhm. loolu noonu mën na ma bàyyiloo tatouage comprendre loolu mën na ma bàyyiloo tatouage parce que loolu man je suis intéressé de dans ce bi may bàyyiloo tatouage boobu mooy man ma bàyyi man ma bàyyi tatouage bi pour dem toppatoo samay xaj parce que man damay dama yoro ay xaj di leen di leen demee bien di leen yar mhm. donc du coup bu fekkoon ni bu fekkoon ne dama war a bàyyi tatouage ñaar yooyu laay def bàyyi tatouage dem dundali samay xaj di leen di di leen sang ak di leen kii et tout wala ma bàyyi tatouage dem lëlu nekkal yàlla ay kase. ndax yaa yoon boobu yaa koy xalaat bés. ngir naa bàyyi tatouage nekkal yàlla. ba oui dinaa dinaa ko si maa ngi xalaat de mais xalaat boobu noonu. mais xalaat boobu noonu c'est c'est pour mon propre intérêt du pour intérêt nit ñi de. nekk nii nii nii nii maa yàlla est-ce que doo yàlla bu ma ci dee fekk. lii la li ngay liggéey li ngay dund nii d'accord léegi moo tax dañu waxtaan ak quoi liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla wala liggéey bokkul ci jaamu yàlla. mais nag ti ko ak i liggéeyam. voilà d'accord léegi. am na ñoo xamante ne jël nañ sa jaay sàngara def ko liggéey. waaye dafa xaraam d'accord sàngara moo xaraam. sàngara dafa xaraam. Mhm. yow mu jóg dem doxe ko naani ko. yow yaa def lu xaraam. waaye sàngar xaraamul ndax la moo tax ma ne sàngar xaraamul lépp lu xaraam lu ne lu ne dinañ la àtte n'est-ce pas lépp lu xaraam lu ne di nga ko diggaale ak sa borom nangu nga loolu. Mhm. tu es d'accord xaraam sàngara dafa xaraam mës nga gis yàlla di àtte sàngara ci xaraamaay ci xaraam bi mu xaraam. waaye nit du naan sàngara ba pare dem. voilà waaw loolu moo tax ma ne nit ki nag moo def erreur waaye sàngara bi deful erreur. parce que quoi yow mi naan sàngara bi yow yaa def lu xaraam waaye sàngara toog nii sama côté exemple toog nii sama côté ma toog fii nii xaraamu ma ndax ma fa ko moo tax ma na leen nit mooy def lu koy sànq. Mhm. xam nga mèche dina defe ne ki koy defar ki koy jaay ki ko jënd ki ko létt ki koy létt ñëpp la yàlla boole rëbb. waaw loolu moo tax ma ne la li nga wax nii ànd naa ci waaye daa am loo xam ne. boo ci ba mais en fait am loo xam ne bu fekkee ni yow da nga cee tënku loolu yow lay waxal bu fekkee ni tënkuwoo ci loolu waxul ak yow loolu lu muy tekki exemple sàngara araam na ci jullit waaye sàngara dagan na ci ci ki euh, njabootu Yeesu Christ kon yow liggéey bi xaaral rek non question la non bul daw foofu bul daw foofu mm-hmm, dama ne sàngara araam na ci jullit n'est-ce pas. lii lii jinjeer la bu ko xoolee lii jinjeer la. non non <laughs> ma sàngara. Ah, mhm. araam na ci jullit. Mhm. waaye araamul ci chrétien. Mhm. nest pas. bu fekkee nag bu fekkee nag yow jullit bi yow lañ teree sàngara yow nga ne chrétien bu naan sàngara dem safara yow lu si sa yoon lu la ci wóor. ki ñu yónni kee xool maanaam Jésus Christ Jésus Christ euh, bi nga xam ne yàllaa ko yónni moom moo leen ne naan leen c'est permis te pourtant loolu yàlla ànd na si. ba tey ba tey day yam ci lakum diinikum wala yati voilà d'accord léegi nag maanaam c'est yàlla du waasoo yàlla du ñii ko moom yàlla du ñee lay waxal moo tax nit ñi xamuñu yàlla léegi nag bu xamul yàlla nag mënuñu comprendre lan moo tax ma ne la yàlla du waasoo yàlla du ñii ñoo ko moom yàlla du ñee ko moom yàlla mooy benn buur boo xam ne ñépp dañ kaa war a jaamu léegi ñépp ñooñu nag indo bi ci la bokk daa war jaamu yàlla n'est-ce pas waaye yow nag wala boog dama foog ni indo bi bu bu bëggul Muhammad Rasulullahi rek mënatul jaamu yàlla an kay mën na jaamu yàlla kay parce que ñoom tamit am parce que ñoom tamit am nañ seen yénente boo xam ne yàllaa yàllaa ko yónni te ñoom moom la ñu wóolu Muhammad doyu leen kooku la ñu wóolu comme ñun ñii Jésus-Christ doyu ñu Muhammad mooñ doy c'est notre droit comprendre nga léegi nag bu fekkee ni yow kii moo la doy te yàlla yónni na ko lépp la nga xam ne maanaam moo la ko digal def ko pour nga jot ci leer gi ko yàlla yónni waaye leer gi ko yàlla yónni naa rien à voir ak diine bi moo tax diine yi wute mais yàlla kenn la comprendre nga foofu. Mhm. maanaam boog yàlla message bi mu lay jox message bi du diine. parce que message bi bu fekkoon diin mais mais diine la moo tax man bépp yénante bu wàcc danaa la ah man kat ci yàlla laa jóge yàlla nee na ñun dañ ko war a jaamu nuñ ko war a jaamoo mooy julli woor natt ak asaka ak bëggante n'est-ce pas. Mhm. bu fekkoon ne loolu mooy message bi moom mooy moom mooy xool xool maanaam maanaam bu fekkoon message yàlla bi mooy diine képp ku yàlla yónni da ngay da da ngay dox ci diine bi yàlla santaane te yàlla leen kese la santaane yàlla du santaanewul ñaari affaire à la fois wala trois affaire comprends nga parce que quoi bëgg-bëgg yàlla benn bëgg-bëgg la muy lan xam ma balaa nga maa jaamu foofu la wax ji nekk te ñu bëri fa la ñu réeree. fa réeree. macha allah macha allah waaye kon euh, ni ma ko waxee rek man bés dina ñëw nga jël retraite ci liggéey bi changé lépp. ba fa teg lépp ci suuf balaa dee di ñëw. imaam sax dina jël retraite ndax ndax imaam. lu mu bëgg bëgg waaw waaw mooy bañ dee fekk la ci lii. waaw loolu moo tax ma ne la. yaa ngi koy n'est-ce pas ko. non moo tax ma ne la. au fait là on parle de bi bëggoo dee fekk la ci lii tiko. non au fait faut qu'on faut qu'on. non waxtaan rek bëggoo dee fekk la ci lii. waaw maa ngi ñëw. non tontu ma ci lii ba pare waaw moom laa lay tontu nii moom laa tontu nii barke xanaa moom laa tontu. moo tax ma ne la faut qu'on fait faut qu'on savoir mais mais faut qu'on savoir faire la part des choses la part de choses moom mooy xëy yàlla taxul xëy ak gont ak privilège comprendre nga donc du coup man mii sama liggéey bi tôt ou tard dinaa retraité naa ñëw sax naa ñëw sa naa ñëw sa bi. Mhm. man sama liggéey bi tôt ou tard dinaa retraité pourquoi parce que quoi jëmm ji dina mujj sonn. Mhm. li ma mën tey suba dootuma ko mën a ndax jëmm ji sonn na bu jënd ji loofee damay toog xaar. Mhm. comprendre nga waaye ci toog xaar boobu noonu yàlla kese laay dundee. parce que quoi dama nar dem. comprendre nga dama dana dem moom mooy dama war a dellu de dama war a dellu ci yàlla sama borom comprendre nga léegi imaam yi tamit lu mu bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg yàlla imaam yi dina retraité dina bàyyi li muy def. Mhm. comprends nga te bu bàyyee ci te mais maître imam bi bu bàyyee li muy def ci leneen la ci euh, euh, mais maître moom ci leneen lay deewee comprends nga mhm. ci leneen lay deewee comprends léegi man nag bu fekk waaye imam boobu nag mi ngi ñaan yàlla bëgg na ci biir jiite boobu noonu dee fekk ko ci pourquoi parce que ja parce que ci lu lu baax lay liggéey. d'accord léegi moom moom mu deewee ci këram ak mu deewee ci jumaa bi c'est quoi la différence. parce que dafa deewee néegu yàlla. d'accord li mooy néegu yàlla. jàkk d'accord léegi ñu bëri dañoo réer te dama la koy leeral bu fekkee ne da nga jàpp ni jàkka bi mooy néegu yàlla n'est-ce pas jàkka ji kan moo koy tabax yàllaa ko tabax jàkka ji ko tabax. mais moo nañ sama sama. ah non non non bul <laughs> daw. da nga ne jàkka néegu. yàlla la d'accord. parce que man sama néeg xaaral non non maa ngi ñëw ma màggal bi des na maa ngi ñëw léegi dama ne la man sama néeg. kan moo koy tabax maay fay ay maçon ju tabaxal ma sama néeg parce que damaa am fulla wala boog man su ma dee maçon damay tabax sama néegu ba parce que damaa am fulla la ce pas parce que quoi mais mais parce que quoi néeg waaye da kaa war a fonk n'est-ce pas parce que quoi ci ngay dallu n'est-ce pas mm-hmm. léegi yàlla dafa am néeg te néegam bi moom mooy jumaa mais nag néegu yàlla boobu ok je suis d'accord mais kan moo koy tabax yàllaa tabax néeg boobu yàllaa tabax néeg boobu yow nga ne néegu yàlla la lan moo tax jàmm gën xam nga jàmm gën Mhm. xam nga jàmm gën wala boog mbaaw lan moo tax jàmm gën am ay néegu yàlla loo xam ne dafa taa mbott yi naan ngoo kii ngoo ngoo kii ngoo xanaa nekkatul néegu yàlla ba ñëpp abandonné néeg bi xanaa nekkatul néegu yàlla ok néegu yàlla la taana mbott yaa ngi fay mbott yaa ngi fay ngoo kii ngoo nit ñi daw na lan moo tax yàlla ñëwul bale néegam pour gars yi ñëwaat kon gëmoo loolu yow loolu du néegu yàlla xam lu muy néegu yàlla hmm. jëmmi muhammadu rasulullahi foofu la yàlla xaj muy jëmmi doomu lii mooy néegu yàlla lii mooy néegu yàlla bi. léegi ci li ma doon laaj pour ñu tëjee ko rek ndax bëgg nga dee fekk la ci liggéey bi am déet. yow xoolal moo tax sànq ma ne la man. non non bë non non wii lu noo la. moo tax ma ne la man. su ma doon piercing taat sax taatu jigéen. ma dee ci nii. barki alxuraanu karim àjjana laa jëm. loolu moo tax ma ne la man ah ay ay ay maanaam bokk sama bis dee. na rafet ak na ñaaw sama tus newu ci xam la moo tax sama tus new ci man soxla ma samay jëmm di mool xam la moo tax jëmm ji yeggul ci yàlla li may wax loo muy sama ruu moom laa war a sàmb moom laa war a sellal parce que moom war a dellu ci yàlla yàlla xam ne kii kat ruum bii kat am na leer comprendre nga fa yàlla ay mais ay leeri kase la njëmm mm-hmm. fii lay des mm-hmm. merci beaucoup frère ci euh, jotaay bi xam naa ni euh, waxtaan bi am na solo waaye aussi tamit lu euh, ñu koy waxee rek saa su ne damay am mbekk te am ak yow jotaay ak ñu mel ni yow ndax it léeg waxtaan bi day neex waaye tey moom xam naa ni confronté wu lañ man ak yow. xam naa non li dara non mais li waxtaan la rek. <laughs> non li dara kontaan naa ci invitation bi ma bàyyi la ko joxe dernier kàddu yi. waaw maa ngi leen di maa ngi leen di sant di leen gërëm et xam nga lu fekk ngeen ngeen fi ngeen fi jaar et tout xam nga. Mm-hmm. tamit euh, di wax gars xam yàlla moom ñëpp la war du musulman du chrétien du chinois bi ñëpp la war te mhm. sëriñ ñëpp ko woote waaye kenn bàyyiwu ci xel parce que maam Limaamu Laay maam Limaamu Laay mi ci yoof woote na xam yàlla mais gars yi ñoo ci bàyyiwu xel sëriñ Tuubaa Mbàkke dafa ne inal laaxi minal laaxi aynal muridu laaxi woote na loolu tamit loolu muy tekki ni ci yàlla laa jóge ci yàlla laa jëm ku muy topp mu yóbbule ci yàlla kon moom tamit yàlla la woote maam limaamu laaxi euh, tu penses que laaxi boobu noonu moom loola sant maam limaamu laaxi laaxi boobu mooy wone ni moom tamit dafa amoon garaatu xamale yàlla moo tax ñu ne maam limaamu laaxi laaxi laaxi boobu nag yàlla la moom santul laaxi boo xoolee ci kayitu juddoom doo fa gis laaxi bi laaxi garaat la bu ko fekk si ci kaw suuf ndax li mu wéetal yàlla li mu yàlla ndax li muy xamale yàlla sëñ Tuubaa tamit dafa ne topp ma yóbbu la ci yàlla yow soo ma yóbbee ci Macky saal du ma gis Macky Sall. Mhm. soo ma yóbbee Touba du ma gis jumaa mhm. donc bu ne ku ma topp ma yóbbu la ci yàlla loolu mais loolu dafay dafay mais moom ko dee loolu may wane ni saa ñëwee ma xamal la yàlla te dina leer nañ te képp ko xam yàlla sa yaram araamul la safara moo tax ma ñeme li ma ñeme di wax li may wax. Mhm. merci beaucoup maam ci jotaay bi di kontaan bu baax a baax a baax mbokk yi à travers Sénégal Buzz 221 nii rek la ñu koy defee ak yéen di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.